mbokk yi ak xarit yi Ousmane Sonko usmaan Sonko sénégalais yi dañu ko découvrir mu am loo xamante ni depuis jamono ji jamono ci Sénégal ba nëgë ni musuñu gis politicien bu am lu neem nit ñi nag lu ñu xamut lu ne lu tax nu ne dinañ ko waxee daan dafa liggéey nit ñi dafa def nii nit ñi dafay manipuler nit ñi dafay xon nit ñi li muy wax nit ñi lan moo tax sénégalais yi topp ko ñu mos lenn ci ay kàddu Ousmane Sonko bu ñu ñëwee joxe ay gis-gis ci kàddoom je vous en prie. Je suis un jeune en effet j'ai 44 ans et je suis prêt Je suis prêt avec les Sénégalais que vous êtes, conscients de l'immensité de la tâche et de la lourdeur des responsabilités étatiques, à conduire le train de ce renouveau. Ce destin commun que nous devons tous nous réinventer pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos petits-enfants, en un pour les générations futures, pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal meilleur. Je suis prêt pour cela, à mettre fin à l'hyperprésidentialisme qui télécommande le et dicte au pouvoir judiciaire pour que le pouvoir soit contrôlé par le pouvoir et pour que jamais ne meure l'espoir d'une justice indépendante, rendue au nom du peuple et non selon les desiderata d'un homme qui a la latitude de mettre des dossiers sous le coude pendant qu'il persécute et, exécute, exile les autres citoyens. Je suis prêt à supprimer les fonds politiques qui ne sont en réalité que des fonds de corruption mis à la disposition de présidents la République qui s'en servent comme instrument d'achat de conscience et de distribution des valeurs qui fondent notre tissu social. Puisque les statuts de notre parti, PASSEF les Patriotes, m'imposent de démissionner si je suis élu président de la République, de démissionner de mes responsabilités de président de parti politique, je les respecterai pour que jamais ne meure l'espoir au Sénégal un président de la République au-dessus des contingences partisanes et sur l'essentiel. Je ne sont pas prêts. Je suis prêt à ériger, je suis prêt un culte de la transparence et de la reddition des comptes, à détacher l'IGE, la Cour des comptes, le CENTIF et l'OFNAC de la tutelle de la présidence de la République, à élargir le rayon d'action afin qu'ils puissent contrôler toutes les institutions et saisir, et saisir directement la justice pour que jamais ne meure l'espoir d'une gestion saine des affaires publiques. Je suis prêt, je suis prêt à faire de l'industrialisation le fer de lance de notre modèle économique. soutenue par une agriculture non tributaire des seules précipitations hivernales, par la conquête définitive de la maîtrise de l'eau et le recours globalisé à l'irrigation. Et pour cela, pour cela, je suis prêt à revitaliser les vallées fossiles, projet qui a été agité par tous les présidents depuis Senghor, mais qui n'ont jamais le courage de l'appliquer face à l'intransigeance de la Mauritanie. C'est illustratif de notre perte de souveraineté, puisque nous ne pouvons même pas recourir au potentiel qu'offrent le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, particulièrement le fleuve Sénégal. Et après, on nous parle de bon voisinage parce que simplement la Mauritanie s'y oppose. Et c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, j'ai été particulièrement opposé au partage égalitaire des ressources gazières avec la Mauritanie, parce que je peux vous que s'il y avait un seul mètre cube de gaz supplémentaire du côté de la Mauritanie, nous n'aurions jamais eu l'acceptation de la Mauritanie de partager avec nous. Je suis prêt à mener une politique cohérente. Je suis jërëjëf muy discours Ousmane Sonko li lay jaaxal ci boo dégloo li Ousmane Sonko wax ay homme politique wax nañ ko jàpp naa ni président Macky Sall mi tey taxawoon na am na yu bari yoo xamante ni wax na ko donte du ma wax yépp waaye am na ci yoo xam ni waxoon na ko ne dana ko def waaye ginnaaw gi defu ko ba sénégalais yi mere nañ ko ci pourtant am na yoo xamante ni bi président Ablaye Wade diggoon na ko askan wi ne dina ko def askan wi gëm ko ginnaaw gi defu ko même askan woowu la Ousmane Sonko ñëwaat waxaat lu ni mel askan wi waroon nañu wax ne lu tax ñu koy gëm parce que ñaar wax nañ ñu ko ñoo xamante ni bii promettroon nañ ñenn ñi sax dem na bañ ne ay promesse électorale ku koy gëm yow la soxal lu tax ñuy gëm Ousmane Sonko foofu la mbir mi ne lu tax ñu koy gëm parce que ay waxi kese la. yeggagul fi mu war a jëfee te gis nañ ñu bari ñu waxoon di jëf jotee ñu jëf leneen kon wax lenn la jëf leneen la mais dama jàpp ni sénégalais yi ñoom it dañ ne pare nañ ginnaaw bi Ousmane Sonko ne pare na pare nañ ci lan parce que pare nañ pour déglu rek wax waaye jàpp naa ni dañuy déglu léegi ana kan mooy wax kiy wax mooy kan parce dafa am discours. homme politique am parcours maanaam discours ak parcours Ousmane ko wax na ko ci ay yoon wane ni te loolu dafa ximmil bëtu ñu bari ñu gëmoon parcours ñu bari ñi nga xamante ni bii tey jàpp naa ni mën nañ wax ni nax nañ askan wi parce parcours Ablaye Wade nekkoon na parcours boo xamante ni du ma ne kii na waaye am na ay doxalinam yoo xamante ni bi boo ko gisee di nga xam ne tamit daan na dugg ci nguur gi di génn di dugg di génn kon am na yoo xamante ni bi bu la ko waxee ak ni nga xam ne noonu la doon nekkee ay militant nga xool parcours ay jaar-jaaram ni nga xamante ni bi noonu la doon fonctionner ak niñ doon doxale am na ci lu bari loo xamante ni bi tamit boo ko xooloon mën na am loo xamante ni bi mënoon nga ko gis parcours président Macky Sall boo ko xoolee ci ay doxalinam bañ nañ ba di la wax lu ci bari que ni bi mu demee di voté ji Fatick yóbbul carte d'identité ni nga xamante ni bi noonu la voté tamit ni nga xamante ni bi noonu la doon doxalee jaar ci parcours ak tamit bi mu ñu defalee li nga xam ne mooy déclaration de patrimoine am na yu bari yoo xamante bu ñu xooloon parcours am tamit après est-ce que promesse yi discours yi bu ñëwee nga lëkkale ko ak li nga xamante ni bi mooy jaar-jaaram est-ce que doon na méngoo Ousmane sonk nag dama jàpp ni askan wi pare nañ pour déglu ko waaye tamit càmbar nañ parcours am Sonko dafa amul sens am sens parce que nu mu ameewul sens parce que dafa amul sens c'est parce que état yëpp ñoo koy càmbar ginnaaw bi mu waxee ba pare ne man taquma lu doy ni un franc jëluma ko randaluma lenn te dugal naa ci keesu état bi ay milliards yi milliards yoo xamante ni bi proposé nañ ma ba tàyyi loo xam ne mënoon naa cee am lu ma neex nit ñëpp xam loolu waaye yitteelu ma parce que dafa am nuñ ma yare jaar-jaaram boobu mooy tax nit ñi mën a sukkandiku ci li muy wax ndax li muy wax lu muy def la walla du lu muy def loolu la ca kanam a koy kii waaye bu ñu interroger li mu romb xel mën nay dal ci li muy wax te ñëwagul loolu moo tax sénégalais yi jàpp ko kon képp ku jàpp ni ay liggéey laa ki xon déedéet mais Sénégal dañu jekki-jekki li Sidy Lamine doon wax ne bés dana jot mel ni nit ñi dañuy xëy xëy ndaw ñi dañuy xëy xëy lek xam ñàkk xam dañ ci ñoom ñu xam yëf yi ni mu demee sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum wax ko ci beneen forme daldi ne bés dana jot mag ñi dootuñu mën a yar ndaw ñi waaye bu ko mag ñi xamee njariñ lay doon ci réew mi dama jàpp ni loolu mooy li nga xamante ni moo jot ba tax tey sénégalais yi mën a nangul usmaan sonk luñ mus sa nangul kenn di liggéey di ko jox am ci moom yaakaar wattu ko seen bopp am ci moom yaakaar loolu yépp boo interrogé li ko ko may mooy démbam mu des nag li ci kanam nit ñi am ci moom yaakaar que ni lii mu wax ni kat je suis pour def ko nit ñi jàpp ni ëllëg si biir dana ko def loolu moo waral mbir yi